alpulaar yi ak séeréer yi déglu leen ma tey laa leen di woyal président Macky Sall moom Marème mii bu amee seetlu ñii ñëpp gisoon na leen kenn desu euh, lii Marème Diop si la moo ko fi joxe woon euh, ndax man dem naa ci moom noo xam ni bu ma nee ñaar laa lay jox ma ni ko dinga nga mën juróom ndax got tuutiwul mi ngi nii toog euh, di nuyu it imaam ci suba ba tey mi ngi fi toog ak naayibam sëñ Dame Seck di nuyu sama jarbaat bi fi ñëw léegi di musaa Sarr nga xam ni moom itam lépp lu aliluur Macky Sall bëgg ko muy guddi muy bëccëg mi ngi ci lu taxawaatal président Macky defe naa loolu la Babacar Pascal Ndione it taxawe pour lu fi bàyyi Macky Sall ba faaw wokku na deuxième mandat ak troisième mandat ba faaw parce que def na ci réew mi loo xam ne benn président mosu ko def moo tax kilifa yi yépp jóg pour jàppale président mag ci présentation bi Moustapha Ngiraan doomi dëkk bi la ndax ay nijaayam a ngi nii toog di sëñ Dame Seck ak Babacar Seck euh, kon euh, li ñuy wax du mën a dañuy présenté wu rek Malick comme ni ko sëñ bi waxe léegi Malick Dieng mi ngi nii toog Euh, kii mu nekkaloon di mi Mimi Touré di premier ministre bi woon Malick mi ngi nii toog sama ginnaaw kon mën naa ni tey Babacar Pascal Ndione am na jobaas parce que got am na lu mu firi ci jobaas te fii la jëkke dama ko ni fii ngay jëkke fi ma dëkk ñu gis la xam la nga xam ma parce que man li may def nëbbutuma ci dara te moom itam defe naa fi mu dëgmal nëbbatuwu ci dara kon Babacar na la wóor ni eh, non jël nañu suñu engagement jàppale la nga jàppale président Macky nga bàyyi na xel dëkk bi duma la ko nëbbu dañ ne woon sax dootuñu politique parce que ku nekk jaar na fi lu ne jaar na fi ñu ngi nii toog damay coordonné yow toujours su ma la woowee soo jëlul it danga ma naan kuppeel ma woo la waaye nag ma di la xamal ne dëkk bii nga jàppal ma leen fonkal ma leen ñu ngi nii toog wóor na ma ni lu ñu la wax ñu nga ci ndax waa kër sëñ Saliou Mbacke fi ne ak waa kër Alaaji Maalik kon loolu laa ni woon rek ma ubbee ko eh, di am mbégte bu baax a baax a baax a baax a baax ndax di la jéggul it yow itam parce que kilifa nga te li nga bàyyit bari na naga di démb yaa ngi caajaay kon naga si tey bu la fekkee fi nga war fee def fukki dëkk dañ lay mastawu coono yi di la xamal ni la dëkk baa ngi nii boo ko amee am nga jobaas yëpp jobaas 118 village la waaye dëkk bi mooy ndeyi jobaas kon dëkk baa ngi nii yaa ngi nii jël nañu suñuy engagement dëkk baa ngi nii téyel ma leen. leen sant di leen wax ngeen dal ak jàmm. ndax ñun dañoo nekk ci dëkk bi yàgg na wax dëgg yàlla protection bu ne jaar na mujj nañ dem ba ci yàgg ni politique sax man damaa mujj tàyyeen dootuma politique waaye yàlla def Abdou Diallo wax ma ci madame Salam la ma jëkk a wax booba dem naa Thiès ànd ak sama mbootaay gi ñëpp toog bi ñu demee ñëwaat nag bi ma toogee am ku fi jaaroon tamit ma dem ko nag man bàyyi naa euh, kii politique dootuma politique bi ma la waxee nag ma gis la tamit nag sama xel ma xel dal na wax dëgg yàlla ne woon naa bàyyi naa waaye sama xel dal na yàlla xam na ko te ñun doon nañ jigéen ñoo xamante ne nag man de xaw ma waxantu ñoom ñi xam nañ ma maa leen jiite waaye du ma waxantu xaw ma lu ñàkk fayda lu ma la waaw nee naa waaw mënee déet nee naa déet ma leen sant ñoom ñi ne te xam ne ñoom fu ma fu ni waaw rek topp nañ ci man te loolu du sama ngóor a mayu ma ko kon yàlla rek laa koy sante ak ñoom ñi ne ma leen a fay ndaxte ñu ma mag rek a fi nekk wax dëgg yàlla ma sant leen bu baax kon nag Pascal yàlla bu yàlla tas yaakaar ñun nag ma ci dolli nag bëgg nañ ko ñu jàppale de jigéen ñu bëgg liggéey la ñu waaye nag amuñu moyen ñu sonn lañ dama boo gisee fii fii nga gisoon ñu fiy lal lekk ci suuf di fi jaay bëgg nañ ko ñu jàppale lool nag ndax ñu liggéey nag mel ni suñuy moroom te li ma la bëgg a xamal de man de li ma la waxoon laa lay waxaat du ñu waxantu bu ñu xasee ba jàpp jàpp ma te man de jàpp naa la barki Serigne Touba Mbacke jàpp naa la. di nuyu sunu gan nga xamante ni man Abdou Diallo jobaas lu mës a yëngu su gestoo gis ma maa ci ci ginnaawam takku Ablaye Wade ba léegi man ak Abdou Diallo fu mu taxaw taxaw naa fa garaat bu mu am bu gestoo gis na maa ngi ma ko ànd ma ne ko nag bàyyi naa politique man damaa sol ndax aw ma ci dara ndax politique su fekkee dañ cee wut euh, diine nekku ca lislaam nekku ca dañ cey wut lu ñu jàppale avancé lu ñu ak suñu njaboot ndax ñun jàngu ñu ñu ngi ci àll bi su fekkee mun ñi am lu ñu avancé ñoo ak suñu njaboot bàyyi ko day gën Abdou ñëw nett li ma Babacar wax ma ni mu demee moom ma ne ko lekkoon kon takkuwaat naa topp sa ginnaaw ni ñu déggee Babacar dana suñu xel bi ñu ko gisee suñu xel sedd na ñoo ci ginnaaw jàllo di ko jàppalee lu mu dugg dugg nañ ci lu mu génn génn nañ ñuy sawar nag ci lépp lu jëmale euh, Macky Sall kanam ñun ci la ñuy dox ci la ñuy yëngu dëkk nañu ay bourse jigéen ku dem banque lépp Macky moo ñu ko may jàppale ñu dimbali ñu fonk ko fu mu sànnee fu mu indee kàdd goo xam ne euh, sappee koo xamante ni mën nañoo liggéey ak moom ñu xool ko yëfam doy nañu fu mu taxaw taxaw nañ ci ginnaaw ñoo ngi lay jàppale ne sa ginnaaw yaakaar la doon ay paysan doon baykat suñu njaboot ne ci àll bi mënuñ leen dara ñu gis ni ngay liggéeyee dégg sa tur ñu la gis mu dal suñu xel noo ngi sa ginnaaw di la topp di topp sa ginnaaw loo digle ci lu ñu mën ñu nga ci jéem suñu kàttan suñu kéemtalaay kàttan di la sant nag sant Abdou Diallo mii ndax lu baax lu mu am rek ko yéene lu baax lu ma ko jëri andi ko got man dina ma dir liggéey nii yaay sama jigéen sama ginnaaw ñun nag man ci wàllu mag ñi laa féete xale yi ñoo féete ci xale yi bu Diouf mooy seen président ñu ànd ak ñun déggal ñu lool kon moo tax ma jël topp seen ginnaaw jël seen mu jiital ko mu topp suñu ginnaaw ñun nag ñu am nañ ci solo mais duggaguñu suñu carte inscrire guñ ko xale yi dong li su xale yi nga gis li xale yi nga gis de ñun nag ñi ñoo ngi toog bu soobi yàlla kon ni ñu la gisee nii Abdou waxee ni dal suñu xel bu neexee yàlla liste bi fi nga bëgg mu egg fa dina kawe sa njox incha allahu rabbi macha allah ñoo ngi sant yàlla bu baax di sant Abdou bu baax di sant waa Jobaas bàyyi ñu kenn sant Moussa Sarr suñu doom ji nga xam ne mi ngi bi yàqul dëkk bi tasu ko dafa mais bi ñu gisee ji yow dafa toog di lu xaar pour bëgg a fekkee programme bi ni mu demee ñoo ngi sant yàlla bu baax sant boolem ku bokk ci dëkk bi rek wax ji moo bariwul ak miinu ma wax maa ngi sant yàlla bu baax sant ñëpp. Jobaas naa leen sant naa leen nuyu naa leen yéen ñëpp ku nekk ci seen tur ak seen sant di ci jiital nag sama jigéen yu baax yi kontaan naa ci yéen yàgg nañoo xamante yàgg nañoo jigéen. du mais yàlla tey day doogu tudd sama ñëw fii si Jobaas ma ànd fi nag ak sama càmme Babacar Pascal Dior di ku bëgg président Macky Sall ku ko am fulla ku am yërmande ku am jom macha allah yàlla ko yàlla lafal jar gërëm naa leen sant naa leen tey jii su ma ñëwee fii jàkkaarloo gi yéen moom moo tax ndaxte bëggoon naa lool jàppale leen mais doole ji laa amul woon demoon naa ba wax Abdou mi nga xam ne sama càmmiñ la mu yéene ma lépp lu mu gis ñëw ne indi ca dëkk ba defaral waa dëkk ba ba finalement sax sama borom kër Serigne Assane moo doon ñëw ci dëkk bi di leen jàppale te ñëpp xam nañ ni. Euh, soo amul yenn doole yi amoo yenn kàttan yi te di as gor doo mën a ñëw di jàkkaarloo nit ñi di leen xool ay bëti neen donc sant leen yàlla bi ma ñëwaatee fii ànd ak sama càmmeñ ji nga xam ni yàlla bàyyiwu ko am na ay teraanga président am na fu mu ko teg ngeen jàpp bu mu dëgër man de lii leer na ci seen bët ñëw naa fi moom laa fi àndal ñu fas yéene ànd liggéey muy sama càmmeñ may jigéenam lépp lu ngeen ma doon jàppale gën leen koo dolli dolli leen dolli leen jàpp leen ba mu baax ndax mouvement bi ñëpp xam nañ ne APR man ci ngeen ma xamee ba léegi maa ngi ci mais nag muy parti bu metti ndax parti bu ndaw la bari ay problème si biir donc président Macky mouvement yi ñoo ko mën a dooleel parce que ñëpp a ngi naan pour ñu falaat ko en 2019 mais mouvement yi ñooy ñëw renforcer parti bi parce que problème yi bari na coow yi bari na donc yéen mu leen dugg ci benn coow jàpp leen ci mouvement bi tudd doolil doolil président Macky dafay doolil président Macky am na doole mais day ñëw dolli si jàpp leen ci dolli ñu monter comité yi ñu gën a bari incha allah. ngeen jëf mbooloo mi asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam di nuyu sunu mbokk yi nga xam ni ñoo dëkk got ñu ñëw seet si leen tey pour waxtaan ak yéen bala ma yëkkati kàddu damay nuyu imam ak naay mam ñi nga xam ni boobu ba léegi ñu ngi toog fii di ñu xaar di leen sant di leen gërëm kenn ku ne xam na ni ay nitu diine lañ du ñu faral di ñëw ci ndaje yu mel nii kon bu ñu déggee ni man dama fee war a ñëw ñu toog fi di xaar boobu ba léegi amel naa leen cant amel leen ngërëm maa ngi gërëm tamit bay Abdou bi nga xam ni wax dëgg yàlla mook fay ak yeneen i naataangoom def nañ liggéey bu am solo ci biir Diobaas def ko ci mouvement Doolil Macky defe naa jaay nañu lu mat mille cartes ci biir Diobaas tey ñu ngi got bu ñu fi jógee dinañ dem Babaak Ndiojon dem Babaak centre te ñaari babaak yooyu bu ci nekk am na ñaari comité yi ñu fa war a monté bu ñu fa jógee dinañu dem Ngoxoj dem Kër mature dem euh, Kër Pape Mbay dem Ngolaar dem Ndungel kon tey dinañu monté fukki comité comité bii fi la ñu tàmbalee kon nag yàlla na ngeen ma jig ma jig leen yéen yéenay sama buntu ci biir Jobaas te nag am naa ci yaakaar parce que nag seen mbokk laa tukulóor moo wax neddu ko bandum séeréer wax o kiin boo dee jóg di liggéey wala ngay wut mbooloo wala lépp looy man di def tàmbaleel ci say mbokk suñu àndee ak yow rek sa doole day bari loolu moo waral man ma tàmbali ci yéen maa ngi nuyu nag sama rakk Moussa Sarr mi ma fi fekk ki nga xam ni kenn ku ne xam na liggéey bu am solo bi muy def ci wetu Abdou Mbow Abdou Mbow di nekk responsable APR bu ràññeeku ci biir cees nekk troisième vice président assemblée nationale soo gisee ma tudd Abdou Mbow mel na ni tudd naa responsable APR yu cees yépp parce que nag liggéey bii ma tax a jóg te loolu bëgg naa ko fee leeral dama ñëw pour ñoom lañu liggéey ma am lu ma ci dolli loolu moo tax sama mouvement tudd mouvement dollil Macky maanaam li ma fekk Macky Sall am ko ba pare ci ay militants ci ay responsables dama ñëw indi leneen loo xam ne day ñëw dolleeku ci loolu bi ma rencontré du ma waxtaan ak moom dama ko nii man day ñëw naa mais ci misaal dama bëgg nga jàpp li ma tax a jóg ñëw naa fekk Macky Sall am na ndaa ndaa bi am na ndox dama bëgg dolli ndox ci biir ndaal yi waaye nag man dama jàpp ni su ma bëggee jàppale Macky du ma fekk ndaali mu root ba pare may tànk ci ndaali di ci sottiwaat kon dolliwuma ci dara kon militant yi Macky Sall am ñu nekk APR dama leen faa bàyyi man ñaanuma benn militant APR mu ñëw dugg ci sama mouvement parce que ñu ngi jàppale Macky ba pare koo xam ne fekk nga ko muy jàppale Macky jarul ngay sonn di dépenser sa énergie pour mu ñëw ci mouvement boo xam ne day jàppale Macky loolu amul sens man li ma tax a jóg mooy ñi nga xam ni am ñoo Macky Sall jàppale wuñ ko moo xam ci parti opposition la ñu nekk moo xam musuñoo def politique moo xam def nañ politique ba sonn toog ne dootuñ ko def comme ñu mel nii yéen ñoo xam ni am na lu ma ko dégg fii ma bëgg leen wax ni nag bu leen toog bu leen découragé parce que Macky Sall ku jar a jàppale la su ngeen ko seetloo président la boo xam ni après indépendance la juddu maanaam mentalité ancien président yi yoru ko moom lu jëmale Sénégal kanam. moo nekk ci xelam moo nekk ci boppam te projet yi mu taxawal ku ko xool xam ni kii fa mu bëgg a jëmal bu ci ñëpp jàppee sunu réew mi dina naat loolu moo tax man yàlla baaxe ma mu war ma audience ma ànd ak Serigne Abdou Fatah Mbacké bu sëñ Fallou kenn ku ne xam na ni kooku xaritu Macky Sall la wëllëreem la ci audience boobu laa jëlee engagement ni président de la république dina la jàppale ci politique dinaa la ko jàppale ci caajaay fa ma dëkk mais dinaa la jàppale également Thiès boo ma ci joxee ndigal président daal di doog samay wax ne ma jox naa la ci ndigal kon lii may def cees ndigal laa ci jot ma bëgg waa APR xam ni damaa ñëw pour dolli li ñu def pour mbooloo Macky Sall gën a yaatu Macky Sall gën a am ndam kenn ku ne xam na ni Macky Sall Thiès ñor na ko def na fi projet yu am solo mais ci wàllu politique ki nga xam ni. ah mooy euh, euh, euh, l'un des principaux opposants Thiès la dëkk ñun nag duñu ŋaañi kenn duñu wax lu ñaaw ci kenn mais sunu décision jàppale Macky Sall ci Thiès jël nañ ko te dinañ ko jëmmal li ma def nag lu raar lu raar la chef de service bu jël décision ni day def politique jël engagement dugg ci terrain politique bi waxuma ni bariwul waxuma ni amul mais bariwul mais nag dama ko seet seetaat ko xam ni position bii ma nekk tax na ma xam ni Macky Sall liggéeyam liggéey bu am solo lay def benn exemple rek laa jox muy problème mu énergie bi kenn ku ne xam na ni Macky Sall bi muy falu courant bu régulier amul woon Sénégal la règle c'était les coupures de courant l'exception c'était la disponibilité de l'électricité mais ci domaine boobu daf ci am dossier yu bëri yu jaar sama loxo mu permettre ma ma apprécier la profondeur des idées et des dossiers du président Macky Sall muy plan bi mu taxawal pour vraiment énergie bi mu suqaliwaat ko ku dëkk ci région Thiès dégg nga Africa Énergie dégg nga Toben Power dégg nga Synergie SA yooyu yëpp ay sociétés yoo xam ni Macky Sall moo fexe ba ñu ñëw investir dans la région de Thiès pour que ñu accroître le potentiel énergétique defe naa seetlu ngeen ko actuellement la tendance est renversée maintenant bu ngeen ko seetloo l'exception c'est les coupures de courant les quelques rares coupures de courant et la règle c'est la disponibilité permanente de l'électricité partout au Sénégal loolu moo tax ma ni Macky mi ngi liggéey te kuy liggéey nag sénégalais bu bëgg Sénégal jëm kanam da laa war a jàppale loolu moo waral ma ñëw ci terrain politique dugguma nag biir APR parce que nag Macky am na ay kàngam muy Thiès muy feneen yoo xam ni ñoo koy liggéeyal ñoo koy mobiliser nit ñi liggéey liggéey bu am solo am ay résultats ku xam politique xam histoire politique u Thiès di nga xam ni le président Macky Sall électorat mi ngi yoxu progressivement à te loolu responsable yi mu am à ñoo ko liggéey ñun nag dañoo ñëw pour dolli ci loolu pour que la tendance soit définitivement renversée à pour que président Macky Sall mën a am ndam ci élection yii di ñëw à Thiès su ma nee élection nag vraiment élection législative yu 2017 laay wax wax élection présidentielle 2019 parce que nag dañu am ambition fexe ba Macky Sall am un deuxième mandat mën a eggli les innombrables projets qu'il a pour le Sénégal loolu moo tax ñun dugguñu APR dañoo bàyyi APR ak responsable APR yi ñu continuer liggéey bi ñuy def ñoom mais ñun dañoo taxawal un mouvement de soutien sama mouvement nag wuute na ak mouvement yu bari parce que ñu bari bu ñu créer mouvement ci turu mouvement bi rek day ngay am jeexi jaaxa doo xam kii diw la jàppale wala diw la jàppale de du leer genre mouvement yooyu dinañu mën a sol mbub mu ne mën nañoo jàppale ma Samba tey mais ëllëg mën nañoo jàppale ma Demba man nag engagement total laa am derrière le président Macky moo tax sama mouvement ma tuddee ko mouvement dollil Macky ça veut dire que man Macky Sall laay jàppale ma gërëm nag nit ñu baax ji nga xam ni ay wàccees lañ te ànd ak man ci liggéey boobu lim nañu délégation bi ma ànd léegi Dame Diakhaté di rakku si di Diakhaté promoteur yéen ñëpp xam ngeen ko ku am engagement la ci sama ginnaaw sama rakk Omar Gueye di opérateur économique lépp lu ma organiser ay otoom ak ay moyens lay mobiliser di ci jàpp te du soxla sax ma jox ko dara même ci biir mbooloo bi sax bu ngeen xoolee du ngoon ko gis il est effacé mais ci lépp lu ma yëkkati rek moom moo ciy jiitu moo ciy mujj ma koy remercier bu baax ah soxna Mariam Diop Sylla yéen ñëpp xam ngeen ko yéen waa got xam ngeen ko muy jigéen ju am jom yéen waa Joobaas ci boppam xam ngeen ko di jigéen joo xam ni mi ngi liggéey liggéey bu am solo à Thiès yàlla baaxee ma nag. borom këram di sëñ Assane di sunu sëriñ ñun ñëpp am cofeel ci man ñu toog waxtaan maak sëriñ bi sëñ bi daal di woo ma ren mu fekk si ci saal bi daal di woo Moustapha Ngiraan ana Moustapha Moustapha ngi ni toog ci wetam ñoom yàgg nañu di def politique mais bi leen sëñ bi woowee def leen ne ci sama kanam jox naa leen ndigal bis ni tey na ngeen ànd ak Babacar Pascal jon jàppale ko ci mouvement bi muy taxawal loolu nag doon loo xam ni lu ma rafetlu la. parce que nag gaynde gu toll ni Marème Diop Sylla bu ko borom këram joxee ndigal mu ànd ak Moustapha Ngiraan kenn ku ne xam ko ci Thiès ñu ñëw jàppale ma ci sama mouvement ñu bokk liggéey loolu kontante rek laa ci am kon soxna Marème yaag Moustapha fii ci got laa leen di dalale jàmm ci biir mouvement bi ñu bokk liggéey boole sunu doole boole sunu xalaat liggéeyal Macky Sall man nee naa waa Thiès lii may liggéey di ko def ci biir Thiès seen njëriñ la yéen waa Thiès parce que man xëccewuma dara Thiès bëgguma fi doon député bëgguma fi doon maire kon lu ma fi liggéey kay Thiès waaye ànd ak man ak responsable Thiès yi ma fi fekk ñoo koy jëriñoo kon lii ñuy def nii ñoom dañ cee war a sawar gën ñu cee encouragé ndokk nag bañ ko gisee noonu ñoom parce que lu ëpp solo ci responsable APR yi waxtaan naa ak ñoom ab Abdou Mbow président gis naa ko waxtaan nañ docteur Augustin waxtaan nañ soxna Mayam Diop si la waxtaan nañ les jeunes de l'APR waa UGTL waa pardon dama juum waa waa COJER toog naa waxtaan ak ñoom wax naa UGTL parce que damay wax ak ñoom dama je veux pas dévoiler de secret mais li ma tax a jóg mooy fépp fu doomu aadama nekk rek te mën a liggéeyal président Macky Sall ma dee ma wax ak yow jéem laa indi pour que suñu doole ñu boole ko gën a yaatal mbooloom politique bu président Macky loolu moo ñu tax a jóg. ànd nañu également ak ñoo xam ni ba ma yëkkatee mouvement bi à Thiès ñooñu ñoo njëkk a ñëw wax naa fi léegi Dame de wax naa Omar na bu Sène mi ngi nii toog bi mouvement bi jógee moom mooma njëkk a recevoir à Thiès dans son quartier ñu war faa installé un comité jëkkëram di monsieur fay yëkkati ko teg ci samay loxo boobu ba léegi mel na ni sax moom moo may gën a soññ ci liggéey bi kon na bu maa ngi lay sargal bu baax di la won ni bu ñu démarré à Thiès diggante yow ak soxna Marème Sylla xam naa yéen la ñuy njëkk a monteel comité yi incha allah bu soobee yàlla. ànd nañu également ak Malick Dieng wax nañ ko fi léegi Malick di xale bu am cawarte koo xam ni ku mën a liggéey la nekk ci wetu soxna Mimi Touré di ko liggéeyal soxna mii ne nekkoo àndal ak Babacar parce que Babacar xam naa ko ku am Pastef la ku bëgg liggéey la comme yaa ngi Thiès moom mu ngi Thiès ànd leen ngeen liggéey boole seen doole bi eh, Birane anam Birane. voilà Birane moom vraiment man awma fayam c'est un jeune boo xam ni il fait partie des plus grands hommes politiques de l'APR à Thiès loolu nag boo koy wax doo xool mbub mi mu sol mais xel mi mu jiital ngay xool xale bu am xel la ku xam fu muy jaar la ku bëgg président Macky Sall la moom mu dem ba présidence le directeur de cabinet du président El Hadj Omar mi nga xam ni man ak moom ñoo bokk nekk caajaay doon yàgg di xeex lool nag ci wàllu politique mais yàlla boolee sunu xol ci kanamu président ñu jubboo boole sunu doole fas yéene liggéey caajaay loolu li koy firndeel rek mooy campagne bii nga xam ni ci lañ jóge ci référendum bi El Hadj Omar Youm ñëwul campagne caajaay vendredi bi président di ñëw caajaay di fa jaar ci lay soog a yegg si caajaay saa yu waxee président ni may ma dem caajaay campagne président def koy naan comme yaag Pascal déggu ngeen te Pascal la nga caajaay foofu amatul problème ñëwul gunge ma ba ci jour boobu lañ ñëw fekk une forte mobilisation à kon euh, El Hadj Omar Youm recevoir Birane ne ko nag Pascal mi ngi def liggéey à Thiès jàppale leen ko loolu tax na Birane vraiment convoqué tous les jeunes de la l'APR ma dajeeg ñoom résidence ñu waxtaan ñoom ñu def seen conférence de presse et c'était pas évident parce que dañoo assumer seen responsabilité kon maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax Birane di lay yóbbante ay remerciements ci jeunes yi nga xam ni daje woon naa ak yéen waxtaan ak yéen di leen won ni man loxo bi ma leen tàllalal duma ko banque lépp loo xam ni yaakaar ngeen ni mën naa ko pour jàppale leen comme na ma leen ko waxee woon bu leen ma ñëbbu ñëw leen wax ma ko ñu bokk waxtaan. parce que nag vraiment liggéey bi ñuy liggéeyal ma ki Sall doole yëpp dañ ko war a boole mu doon benn mais waruñu di xeexante ci suñu biir te dinaa profiter ci occasion bi pour inviter les responsables APR à Thiès ay responsables yu am Pastef lañu ñu dëggu lañu bëgguma lim kenn parce que ñoom ñëpp xam nañ ni xamante naa ak ñoom te jàmm leen yéene. ma di leen invité ñu gën a booloo gën a doon benn gën a joxante loxo bàyyi militant Macky Sall yi ñuy xëccoo te dem dolli ay militant loolu moo am solo loolu moo am solo te vraiment man li ma gis naa yi ñoom ñu koy def mel na ni ànd nañu doon nañu benn te loolu bu jëmee kanam doole Macky Sall à Thiès dafay gën a yaatu dafay gën a yokku ñun ñi nga xam nag dañoo ñëw pour sot bu ko defee jël bi mën a am à loolu ñaan naa ko yàlla te incha allah élection législative yii am na benn journal boo xam ne wax naa ko ci ci benn interview ma ni leen Thiès peut entrer dans l'escarcelle de Macky ñi mu àndal bu ñu gënee boole seen doole ñun ñi nga xam dañoo ñëw pour dolli ñu jàpp ci parce que mouvement yi xam nga ni bëri nañu à Thiès te ñu bëri président Macky Sall la ñu jàppale ñun ñooñu ñëpp nag buñ ñu boole suñu doole defe naa ni la victoire finale à mën nañ koo am. bu ko defee président Macky Sall doon Thiès doon borom Thiès parce que li mu def Thiès nag lu am solo la vraiment euh, wax bi mënuma koo guddal lool dafa am yeneen i bërëb wax nañ leen fukki comité yi war nañ ko monter tey kon fii laa bëgg a yem ak yéen yéen jigéen ñi nga xam ni vraiment am naa fi comité euh, jàpp leen ni partenaire ngeen am mbokk ngeen am ci man ni ma koy defee caajaay nag laa koy defee fii man politique li ma ci xam mooy danga may yéeg ma yéeg la ñu jàppalante dem wuti man santuma kenn mu ñëw jàppale ma parce que aw ma lenn lu ma xiif wala ma mar ko di ko wut bëgg ñu ma puus pour ma jot ci déedéet maa ngi sant yàlla bu baax mais Macky Sall daf maa jaral moo tax man ma jóg samay moyen bopp laay defee politique du benn ndombal tànk politique bu ma yor sama salaire bu aw fonctionnaire moom laa yor mais daf maa jaral ma ci jàppale président Macky Sall ma bëgg loolu leer ci boppu nit ñi man nag tàllal naa leen loxo lépp loo xam ni xew na ci yéen na ma koy defee caajaay naa ko yëg am ngeen koo koo xam ni lu xew ci yéen mën naa cee jot lu xew ci man man ngeen cee jot li am solo nag mooy responsable politique ñaari mbir rek lay soxlaa militan ñaar su wootee na nga ñëw wuyu ku fa romb xam ni diw am na mbooloo loolu bokk na ci li tax ñu koy wekk su wootee jotee nga bàyyi sa lépp. yor sa carte ñëw wooteel ko fi mu bëgg ñaar yooyu de la responsable di soxlaa militant ñaar yooyu laa leen di soxlaa yéen nag li ngeen may soxlaa mën naa bari du ma ko lim parce que yéen a ko xam mais bu jotee rek fexe leen ba ma yëg ko nu ma ko manee dinaa ni teewee incha allah bu soobee yàlla kon vraiment mel na ni fasante naa ak yéen colère jàppante naa ak yéen kon ni ma ko waxee sama tàmbali wax yàlla naa leen jig yàlla na ngeen ma jig du ma daaneel samay wax nag te nuyuwuma le maire de Noto di le ministre Alioune Sarr parce que nag ku ma gis fii ma ñëw dans sa commune di def politique su ma ko tuddul day mel ni damaa noonoog moom te du ñu ay noon xam ngeen ni le ministre Alioune moom responsable AFP la AFP mook APR ñoo bokk benn kuréel bu ñuy wax coalition Benno Bokk Yaakaar man mii nga xam ne mouvement de soutien laa yor ci coalition boobu laa bokk kon mel na ni ñun ñëpp ñun ak ñoom Aliou Sarr ak APR yëpp président Macky Sall la ñu liggéeyal kon vraiment maa ngi koy nuyu maa ngi ci goxam et euh, li ma fi indi pour dolli ko doolee la moom li mu fi am ma am leneen lu ma ci dolli mu doon loo xam ni dafay gën a yaatal Benno Bokk Yaakaar ngir président Macky Sall am ndam ci élection législative yii di ñëw mën a am ndam ci 2019 ñu man ko falaat 2019 mu def deuxième mandat maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax wasalaam alpulaar yi ak séeréer yi déglu leen ma tey laa leen di woyal président Macky Sall Sénégal jóg leen yëngu Macky am na gelwar ajiga mo gelwar beru fay gelwar ajiga mo gelwar ajiga mo gelwar beru fay gelwar ajiga mo ajiga mo gelwar beru fay gelwar ajiga mo gelwar ajiga mo gelwar sona fay gelwar ajiga mo gelwar do do gelwar voilà merci yooyu il faut ma tabaxal ko ndaxte euh, demaa tàmm fu ma dem itam euh, comme auteur compositeur laa il faut ma aussi ma wone sama talaa yi lu mu tuut tuut kon xanaa rek euh, ñu jublu ci mbir mi di dalal gan yi maa ngi leen di nuyu képp ku nekk ci turam ak santam te di leen ndokkeel ci seen teewaay bu rafet bile ah, di njëkk eh, nuyu bi suñu kilifa bi nga xam ne moo waral lii tey di Babacar Pascal John dama bëgg ngeen tàccu ko bu baax a baax ak délégation bu porté bi mu àndal Babacar Pascal John di la dalal ak jàmm ma ne yaa ngi sa kër eggi sa eggi si nga ci sa kër kon bisimila ah, di la nuyu ak sa délégation bi yëpp di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ah joge nañu feneen teew si fii ah, di ci teg sama àndandoo sama xarit ak ñi mu àndal di Abdou Diallo ak Njool Diouf di leen nuyu bu baax a baax ndege lu waral lile mën naa wax ne euh, communication bi ci ñoom la jóge ba mu baat wax ji dikkee ñoom ñooy def lépp di communiquer ak man di diisoo ak man di wax ak man ba lépp ma nangul leen ko kon gàcce ngalaama jërë ngeen jëf di teg ci nuyoo aussi ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew waa dëkk bi kilifa diine yi kilifa aada yi notable yi yëpp ñoo xam ne xëj na dañoo nekk waxtu njuufeen moo tax xëj na jotu leen leen a gis waaw ak euh, jeunes yi duma leen bàyyi ginnaaw jigéen yi xale yi ñépp maa ngi leen di nuyu ci seen teewaay bu rafet ndax su ngeen fi teeloon ñëw ci waxtu 10 heures yooyu kon keroog di ngeen gën a bëgg ndax teew toogaay moo metti te ite yi dañoo bari kon moo tax ne rëccuwuma a ah, la tax ma ne ñëw leen fi kon jërë ngeen jëf gàcce ngaalaama yéen ñëpp waa dëkk bi lile mu doon loo xam ne man dama ne dama yàgg di wax ne man xam ngeen nan laa tudd xam ngeen nan laa tudd nee leen déedéet mbaa ngeen ne waaw rek ngóor jobaas laa tudd ngóor jobaas ngóor jobaas lan la ëmb lan la tekki mooy góor ga góoru jobaas ñeme xare ku ñeme xare nangoo muñ nangoo coono ngir askan wi te gore ca nag gore ca mooy ngoor muy góor ga ak góor ak ngoor ga ñaar ñoo ñoo ànd kon noonu laa tudd ku xamutoon sama tur loolu mooy sama tur ma wax leen ko bés ni ki tey kon ma ne gàcca ngaalaama jërë ngeen jëf li tax lii ñu def ko tey mooy xare rekk ndax dañoo bëgg dëkk bi avancé dëkk bi def dafa dañoo bëgg mu avancé te avancement la ñu soxla ndax fi mu nekk benn waxto boo ko boo ko nelewee rek tardé nga lu bëri ndax réew mi moo ni tollu àdduna si moo ni tollu kon dox chaque jour guddeeg bëccëg dox la laajte waaw kon am na Euh, borom xam-xam bi waxoon bu ma yoroon suma oto ma gis kiy dem ci yoonu Thiès par exemple kenn ki ma fekk ko mu toog di xaar oto keneen ki ma fekk ko mu dox ne duma ma xaar oto puisque ban ban heure la waxtu ba oto bi di ñëw ñaar ñooñu yow mi yore oto bi ñaar ñooñu boo ci naree ko boo ci naree dimbali kan nga ciy dimbali ku toog di xaar oto bi wala kiy dox di dem. ah voilà voilà donc kooku loolu la wax boroom xam-xam bi ne ñaar ci ñaar ñooñu ka nga xam ne mooy góor góorlu bay dox ma ne duma xaar oto su ma yóbbaale kon kooku lay yóbbaale bàyyi ka toog ne oto laay xaar si sinon du ma dem kon ci noonu la mel tey bu ñu toog tooguñu tayuñu te duñu mosa toog monsieur le président duñu mos a toog nag te lii ñu la koy gëmloo ñu la koy firnde loo mooy na sa xel dal boo fi jógee na sa xel dal nga xam ne am nga ay apotar am ay am nga ay leadership fii ci biir Jobaas te leer na ma wóor na ma kon boo nelawee tëddal boo tëddee nelawal kon ma ne yéen ñun suñu waar suñu waar mooy ñu xool suñu intérêt man kenn duma xëpp suuf te yow jëloo suuf xëpp ko say bët nga jël suuf di ma di ko xëpp samay bët du ma ko defal kenn duma ko nangul kenn jamono bi ñu toll jamono bi ñu toll def dañoo toll foo xam ne bopp sa bopp ngoy sa bopp ngoy waaw kon nañu yéenante jàmm ñu dimbalante ñu jàppalante ba li ñu bëgg ci Sénégal kilifa yi li ñu bëgg ci Sénégal ñu man leen a jàppale ñu mën a am réussite loolu daal moom laa amoon li ma leen di wax te di présenté ki nga xam ne mooy président bi mouvement lay yore xaj na loolu laa waroon njëkke mouvement nan la tudd mooy mouvement Dolil Macky mouvement Dolil Macky ndaxte doyaluñu ci Macky doyaluñu ci Macky dañoo bëgg a Macky jëlaat amaat beneen ndam ndaxte Macky doyuñu Malick Macky doyaluñu. di nuyu encore di remercier suñu parents yi nekk ci biir suñu responsable euh, man nag dama jël parole en en tant que responsable de la jeunesse de Ndiodione tey tey buñ ne jeunesse de Ndiodione. ñu fait allusion à la au groupement de réflexion et d'action pour le développement de Ndiondione man mënumaa wax tant que waxuma ci tur groupement de réflexion et d'action pour le développement de Ndiondione ndaxte loolu dafa signifié yu bëri ñun nag dañoo nekk jeunesse bëgg liggéey ndaxte ku ma gis tey ni ma taxawee fii xam ne carrément damaa ci tool man liggéey laa gëm te moom laay def sama moroom yaa ngi nii encore même chose tey ci waar wi lañ newoon en plus di solliciter di lancer appel à ce à ce mouvement di lancer appel à ce mouvement pour mu mën a jotali suñu appel o président de la république monsieur Macky Sall ndaxte moo ñu mën a jàppale suñu doléance yi may njekkee nag ci doléance yi ci électrification ndaxte ñun. mënuñu wax tànk waxuñu électricité suñu jeunesse jeunesse bi mu ngi nii taxaw xam na ne carrément léegi boo fi taxawee de 19 doo mën a génn ndaxte dëkk bi day lëndëm turus te instant yi nuyu ci nawet ñax bi bari na te léegi ñun amuñu électricité amuñu électricité te loolu mooy première paaw développement booy wax développement wax électricité boo ko amee nga commencé foofu dem kaw bu ñu naree chargé portable dañuy dox ba babaak chargé foofu alors que courant baa ngi nii à même même pas cinquante mètres de njonjoon ba léegi mënuñoo am loolu may wax nag instant yi ñu toll bu ñu waxee ñu ne politique politique daawundu lu bëri politique ci la développement xeej ci la développement génnee kon ñun en tant que jeunesse travailleuse de Ndiodione dañuy solliciter loolu le monsieur le président de la république monsieur Macky Sall di wax encore doléance boo xamante ne tey tey ci lañ nekk parce que man mii di wax ak yéen man maay trésorier ASC Ndiol Diobass ba baax tey bu ñu waxee ASC Ndiol Diobass ñu ne carrément ASC boobu war naa ñoo jàppale ndaxte amul benn moyen boo xamante ne mën nañ ci jàpp pour enrichir pour am fonds de départ wala pour am fonds bu ñu mën a doxalee suñu nawetaan amuñu ko man mii di wax ak yéen man maay seen trésorier sama président nag mooy monsieur Ousseynou Youm muy Babaak sant peut-être di ngeen ko gis dina leen wax lii loolu nag nekk na loo xamante ne ñu ngi koy sollicité amuñu sa ay bal yoo xamante ne moom la ñu footballé suñu bal bi démb ci lañ football mais fii lañ ko jëlee yóbbu ko foofu ASC bi amul ay bal te boo waxee ASC ne bal ñun nag suñu doléance la ñuy wax di sollicité encore ñu jàppale ñu tiw li ñuy wax ci électricité ndax te man moom loolu mooy loo xamante ne moom laa ci gën a moom laa gën a taxaw pour ñu jàppale ñu si ndaxte dëgg la am nañ ay responsable commune baa ngi nii lépp a ngi fi mais ñun vraiment gisuñu koo xamante ne mën nañu jàppale ci loolu comme yow ngeen nag nekk soutien wu président de la république am nañ droit ne leen carrément lii la jeunesse bi soxla ñun nag mënuñu jóg mënuñu wax leneen lu dul lii la jeunesse bi soxla lii la population bi soxla lii la waa Ndiodione soxla pour gis seen bopp ci réew mi ndaxte gisaguñ seen suñu bopp ci réew mi dañ koy wax gisaguñu suñu bopp ci réew mi man moom loolu dama koy wax ci kaw jeunesse bi xam na ci loolu may jégalu ci kaddu gi nag di baal ñëpp ak di remercier jeunesse bi fi teew di remercier ñëpp di remercier suñu euh, euh, responsable yi encore di leen ne bonne route continuation ca kaw ca kanam merci jigéen ñi may naan ñun de dañuy wax suñu tolof-tolof yii parce que jigéen ñi dañaa sonn parce que ñun ñoo ngi ci yoonu Cees ñuy fóot di daw guddi ak bëccëg ngir suñu njaboot ci yoon bi ci ba pare encore ñun talatuñu suñu njaboot ci biir kër gi ndil yoonu Cees taluñu suñu jëkkër yi taluñu suñu goro yi taluñu suñu njëkke yi footaluñu njëkke footaluñu goro footaluñu ay doom ci yoonu cees ñuy wax nag monsieur le ñun jigéenu Babaak dañaa bëgg a liggéey nga dimbali ñu ci liggéey parce que Babaak jigéenu Babaak amuñu liggéey waaw parce que ñun ñoo ngi ci yoonu Thiès ku ñu dimbali ci liggéey daal lañu ñu bëgg monsieur le boo demee nga ne mu président Macky Sall jigéenu Babax nee nañu dañaa dañoo bëgg liggéey nga dimbali leen par ñu liggéey ah, ma pare ci côté jigéen ñi may ñëw ci yoon bi jigéenu Babax yi nee nañu amuñu yoon bu baax parce que benn yoon bu baax amu fi yoon bi baaxul courant amul bu nawet bi jotee ñun dañuy am problème mu lëndëm parce que dëkk bi dafa lëndëm ba ne courage wooru séeréer yi ñu nax bëgg nañ ku ñu jàppale ci yoon bi boo leen demee ngeen ne monsieur le président nañu jàppale ci yoon bi parce que amuñu yoon bu baax ma pare ci yoon bi ma ñëw ci problème suñu doom yi élèves yi parce que amu am nañu am nañu sayem wante amuñu ay kalaas suñu kalaas yi doyuñu parce que babaax bu amee sayam ci quatre classes xam nga ne loolu du sayam boo leen demee ngeen ne monsieur président nañu dimbale ci classe yu sayamu babaax maa ngi leen di wax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf dal leen ak jàmm ak salaam merci beaucoup. jon xam nga ñoo jon ak jon dafa xaw a jege woo loolu moo tax mën ma sawar a ñëw fii incha allah lépp loo xam ne wax ngeen ko fi daal. dinañ ci jéem ay pexe ASC bi dégg naa ko dinaa leen jàppale ci ay bal ci ay équipement jigéen ñi seen mouvement yi seen groupement yi ak comité bii ñu fal nii dinaa leen jàppale am lu ma yëkkati teg seen loxo ngeen tàmbalee ko liggéey li ci des nag ci doléance yi dinañ ko yeggee fi ñu ko war a yeggee waxtaan ci ak ñoom ñoom aussi ñu jéem ci ay pexe loolu nag mooy li ñuy jéem mu jëm ci yéen mu des nag li ngeen war a def mu jëm ci ñun loolu nag wax naa leen ni responsable politique ñaari mbir rek la soxlaa militant bu wootee ndaje bu mel nii nga bàyyi sa ite ñëw wuyu ko su wote jotee nga jël sa carte bañ a dem doxi sa soxla mais nga dem fa ñuy wotee nga woteel ko nim ko bëggee loolu defe naa kontra boobu bu ñu ko signantee incha allah yàlla mën na noo may jàmm man nag mouvement bi ma taxawal dafa tudd mouvement doolil Macky dama ñëw pour ñi nga xam ne ñu di liggéeyal Macky Sall ci biir parti APR man ma dem foraatu feneen foo xam ne du APR indil ko Macky maanaam dem rooti feneen ñëw sotti ci biir ndaal yi loolu nag laa bëgg yéen waa Ndiodione Babac bi ngeen jàppante ak man ngeen bokk ci mouvement bi ñu liggéey ko jégga jébbal ko Macky Sall ndax Macky mën noo gestu mën noo jàppale maa ngi leen di gërëm yéen ñu fi teew yëpp di gërëm sunu kilifa bi nga xam ni bàyyi na itam yëpp ñoo toog ak ñun Euh, sëñ bi Faye tur bi nan laati ah Pa Alphonse Faye vraiment di ko nuyu di ko sargal di remercier seen responsable Joseph ak yéen ñi ngeen àndal ñëpp bureau yi nga xam ne nag formé nañ ko fii parce que am nañ fi ñaari comité ma fàttali ne lii ñuy def nii nekkul meeting mais installé bureau comité la bu ci kanamee bu ñu paree installation bureau yëpp dinañu woote ndaje bu rëy meeting bu rëy boo xam ni yéen ñëpp incha allah dinañ leen ko yëgal ngeen mën a ñëw teew. ñun ñëpp ñu ànd jàppale président Macky Sall maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax yow Joseph na nga ñëw ànd ak responsable bi comme ça soutien bi ma leen promettre ma jox leen ko te ñu de diggee gisee beneen yoon incha allah maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax jërë ngeen jëf.